waa yéen xam na ngeen kii ram kii xam ngeen awaay dellu na Ndakaaru njaay waay ay waay waay waay waay waay Ndakaaru waaw kon ram waaw Zandiga Zandiga nag dama xam mënul wax bu baax waaye ku dégg tur bi rek ngeen xam ne yéen a ah yéen a maam jaara bu su mi moo xam ne da ngeen xam ne nag damaa nopp maam jaar man lu ma jaaxal yéen da ngeen xam ne damaa nox maam jaar ngeen yëkkati aduna yéeri jox maam jaar maam jaar nag bi mu solo robb tey dem man loo ku yëg teer parce que man gis naa dem xale bu jigéen bu yëg teer bi bi bi ma gisee ma man a ah, lii de maam jaar war na mën a sol man la leen di wax rang di leen wax tim sama jaaykat parfum bu neex bi kii ku bëgg parfum bu neex demal Sandiga danañ ne jaay fa parfum boo xam ne boo xeeñoo picc sax dañ laaj yow foo jëlee parfum bi rang yow maam jaar looy wax waa Sandiga wuy soo mu ndey gërëm nañ leen rang rang rang bamba kutiir yow bamba kutiir bamba kutiir Touba boo Dakar boos ñoo ñu yóbboon foofu bamba kutiir moo ñu solal lii maa sama madame mi xam ne dama xam bëgg ba dof waaw yow madame looy wax bamba kutiir yow ay waay bamba kutiir rang sant naan la gërëm nañ la rang rang bamba kutiir moo ñu solal lii nag euh, kon ñun amuñ fay Bamba Couture tey nag ñu ngi si bisu tabaski bis bu tedd bi la ñu waajal julli ji nag ndax xam naa ne man bii laay yóbbu man daanaa ne woo ko may wax Bamba Couture nag ku bëgg dem am yëri rafet dem ne si place Bamba Couture moo solal lii madame ko xam ne dama xaar nopp nag ba dof yow non ni nga ma nobee ni nga ma nobee de ba mu ko